pour waajal euh, màggalu kasu rajab nga xam ne gan yi dañuy jóge fu ne ci biir réew beeg ci biti réew te ñu yàgg kaa teewe te yaakaar ne rek ni ñu bari dee ñu bëgg ñëw fekke ko kon bokk matuwaay yi yëpp administration bi nga xam ne moom la ñuy jiite dina ànd ak comité d'organisation bi euh, dimbali ci famille bi dimbali ci waa Touba. ci wàllu ndox dégg nga génn ko am na forage yoo xam ne maanaam li muy génn ci ndox dafa wàññeeku moom nañ naan baisse de débit loolu nag bu ñu si jógee tey ci ngoon deñ xayma seet forage yooyu naka la def ba ñuy mën a joxe ndox mu doy lu ñu ci mën a réparer réparer ko dégg ngeen maire joxe na euh, wane na taxawaayam pour ñu xool bu ci nekk lan moo ko téye ñu jëm a jëm ko jëm ko saafara. waaye hôpital moom warta ñàkk ndox moo tax jël nañ dogal sax ne tey ci ngoon nañu fa yóbbu bâche ba ker ba problème bay faju di ko duy ñetti fan yu nekk camion si te ne duyal leen ko maanaam loolu mooy na na faju bés ni ki tey waaw ndax tam euh, naam dañuy waajal màggal gi waaye da ci am problème yoo xam ne waa Touba si seen dundin bus bu ne dañ ko jànkonteel buñ ñu ko mënee fajaale ci màggal gi mu doxee fa sax saafaraw ak xam ne laay rabbi alamina wàllu kaaraange aussi dégg ngeen mesures yi ñu fi jël police dina def li mu war li ko war yëpp patrouille yi fu ne ñu nekk fa di leen gis di régler circulation bi di mën a nekk ci ci ànd ak comité d'organisation bi ci cérémonie bi ñoom daan nañ ko taxawee balay ñëw ci jur bi ba bu passé ba nga xam ne du am buuxante kenn du mën a lor kenn gendarmerie waxi noppi ci wàllu courant xam ngeen ne Senelec taxaw na ndax tam courant du mën a ñàkk sa la ndox mi aju sa la lépp aju lu bari waaw ñoom demand provisoire yëpp dañ ko fexe ba mu féete boor dañ ko satisfaire loolu engagement boobu boo xam ne dal na xel dina am ay équipe permanent ay permanence yoo xam ne ñoo fay ne ci poste transformation yi fa nga xam ne bu dara amee wala coupure wala dara rek dañuy daal di gaaw zaaw saafara loolu nekk na loo xam ne lu lu lu dal xel la loo xam ne daal ku jëm ci am màggal dégg lu mel noonu sa xel dina dal li ma mën a wax daal mooy dañ jëm ci màggal ga xel mu dal ak xol bu dal à partir de maintenant nag